waa kay ñu ngi leen di delloo ziare leen delloo nuyoo di ziare waa réew mi yëpp euh, di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér di ko ñaanaloon Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg moom te wér lool ak mboolem xalifa généraux boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi di ziare ummal islam bi yëpp waaleykum salaam. jërëjëf sëñ Fallou ginnaaw seen yu rafet yooyu ñu ñu lay fay bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sama première question dama koy jagle ci wàllum paj bëggoon naa xam lan mooy sa spécialité ci wàllum paj sëñ Fallou. waaw wàllum euh, faj euh, mooy sama spécialité ci wàllu ñaan muy wàllu kurus sëñ Fallou Dieng ñëpp xam na ne doomu daara la ci ismu laayil ansam ci la juddoo ci la màggee. li nit ñu bari daan faral di wax ma koy dégg ci mbër yi <clears throat> ñu ne xaalisu nangam lan ma ngénte xaalisu làmb mais ñun xaalisu tur yàlla la ñu ngénte kon suñu lépp ñun ismilahil azam la kon booy xool lasraar ci la ñu gën a màcc jëm waaye am nañ tamit yenn saa yi lu ñuy yëngu ci wàllu fajtal ci euh, tradipraticien waaw waaye suñu foor dëgg nag buñ ko doon lim xam naa ne duñ fi jógee mais dañ di résumer tuuti rek bokk na ci li nga xam ne daal nit ñi xam nañu ci à travers des mondes bokk na ci fay wax tey jii nit lu mu mënti doon ak loo mën di lekk ak lu mu mënti toll defuñu ko nag ngir ku jublang wala ku naafeq wala dara waaye nit des fois di nga toll benn moment boo xam ne jamono jàpp la ba nga am jafe-jafe ak nit te jamono boobu mënoo koo fay wala amoo loo régler sa situation ñu dimbali la fay wax ji ba dara du ci am ci coow waaye dañ lay wax nag saa boo xamee ne man nga. ba man la nga mënaatoon na ko fay li nga xam ne moom nga ko ameel bokk nañ tamit wàllu nopp lu man la te xam nañu ko bokk na tamit ci li nga xam ne da koy def muy wàllu boole ay nit muy diggante bu yàqu ñu fexe ba defaraat ko ak jigéen ju taxaw mënta am boroom kër ba ci taxawaayu doom bu yàgg dinañ ciy faral def ñaan du bëree bëree bëri waaye li nga xam ne tamit moom la gën a gën a xam jàng ko bokk na ci muy naka la ñuy def ba nit bu nekkee ci gàllankoor mu fexe ba dañ ñu jaarale ko ci xalwatu di ismulahil azam maanaam loolu it bokk na ci suñu foor te xam nañ ko lool maanaam asraar nag dafa foor li nga ci mën a wax bari na lool waaye yii ma la wax daal bu ci nekk rek jàng nañ ko ba xam ko ba xam ci naka lañ ci mën a jaar pour dimbale ci doomu aadama waaw. jërëjëf ginnaaw kii yu rafet jàngat yu rafet yow ni ko décortiquer mm-hmm. leer na. Mm-hmm. dañuy dugg ci suñu ñaareelu question du ma waxee ñaareelu question. maanaam mm-hmm. damay dugg ci wàllum jinne man nag wàllum naa ci ku ne. naa ci du mhm. ma waxee ñii ñii ñu ne maay wàll maay borom jinne yi ñii ne ma man am naa soxna jinne ñii ne maay borom biteel bi mhm. te nag sëñ Fallou Dieng di soldaaru Cheikh Ibrahima Fall bëggoon naa xam ci wàll jinne la mhm. ci yàlla baaxee ba nga ciy jëflanteeg jaam yi ciy gis seen bopp surtout wàll wàllum jinne nag waaw Cheikh bi man li ma am moo ëpp doole jinne loolu xanaa neexut a dégg li ma am moo ëpp doole jinne xam nga jinne Euh, wax naa ko ci sama émission yu bëree bëree bëree bëri matière la comme doomu aadama mbindeef la comme doomu aadama wax naa ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun yàlla bindu nit ak jinne lu ñu jaamu ko mais dama yor lu ëpp doole jinne fopp muy ismullahil azam di tur yàlla lépp luy màgg rek loolu la gën a màgg te képp ku nekkal yàlla yàlla nekkal la euh, wax naa la ko ci sama biir wax ba ma dee sëñ Fallou ba léegi ci nitu daara laa tur yàlla rek laa xam ba tax na yàlla boole ak loo xam ne ñoom ñooy digal jinne yi jinne ji def jinne ji def néew ma duma jëfandikoo jinne néew ma aw ma ko dama ko am ba doyal ko bañ naa ko ba ñoom ñoo may sàkku si pour ànd ak man may bañ waaye man sàkkumaa ànd ak ñoom parce que li ma yor moo leen di condition te mooy seen njiit te wax naa ko ci sama benn émission ma ne leen nañu bàyyi bàkku parce que euh, dafa doon loo xam ne yàlla rek moo ko jagoo te euh, gis nga nit li fekk yaa ngi jël sa lépp wekk ko ci yàlla ak alxuraan lépp la dugg rek suñu borom daf ci barke ak ndam waaye maa dàq nangam maa dàq nangam loolu amul benn solo amul sens li am sens mooy fexe ba doomu aadama yi ñëw ci yow nañu am résultat bi tax ñu jóg képp ko am aajo ak bu mu mënti doon su fekkee ne loo loo loo mën la te xam ko jàppale ko ci ca kem na nga ko mën a jàppalee waaye taxaw ci télé ba rajo ne maa fi dàq nangam kenn ku ne xamal li nga xam rek waaye la keneen xam moom bu ko xam. loolu man moom sëñ Fallou man noonu lay doxee mais li ma yor ma ëpp doole jinne te ñi may déglu euh, am na ci ñoo xam ne xam nañ ma bu baax a baax a baax a baax kon am na ci loo xam ne sax jarul di leeral parce que euh, ànd naa ak ay rawxaan yoo xam ne yaakaar naa ñooy digal jinne yi ñuy def am na nag ñoo xam ne nee naan am nañ jabari jinne waaye jinne tàng na tàngoor woo xam ne képp koo xam kenn ku leen mën naa seeg jinne amul parce que jinne safara la te nit ci ban lañ ko bind kon jinne nekkul loo xam ne lu ñu war a mën a di ndamoo la yenn ndamoo yi waaye yàlla defal nañu différence boo xam ne suñu digganteek ñoom eh, kiiraay la loo xam ne ñii yàlla leen di baaxee ñu am leen di leen gis ñii yàlla def leen ci ñoom moo xam ne mun ñu leen a gis mun ñu leen a am waaw kon nag eh, yooyu ci bëree bëri duma ko weddi waaye du ko dëggali duma ko saxal kenn ku ne nag la nga xam yow la engagé waaye mën daal fii laa nekk jërëjëf sëñ mm. soldaaru Cheikh Ibrahima Fall. Mm. balaa maa dugg ci sama ñetteelu question damay des ci jinne mm. man maa la koy laaj. bëggoon naa xam mook rab lan moo leen wutalee. mook rab bokkuñu parce que rab li ko wutaleeg doomu aadama ba tey daanaka du bariwul parce que rab mën naa ne xeetu demetu doomu aadama la parce que rab mbindeef la comme mbindeef yi moom it waaye jinne dafa doon matière boo xam ne. yàlla daf koo bindee noo xam ne képp koo xam ne xam nga rab ñëpp a ko am daanaka rab parce que mbir la moo xam ne ci cosaan lay bawoo ci cosaan lay bawoo mais jinne luñ bind ci safara la ñaari nit dina nekk am ay tuur baa ñu ndëppal ko yooyu ay xeetu rab la mooy dégg ñoo dëkk sàngam rab sàngam fi nekk fii maam Kumba Ndoye fa nekk fi nangam ki nàngam nangam ñooñu ay xeetu rab lañ yoo xam ne ñi ci géej gi la nekk ñi ñooy aar dëkk sàngam ak dëkk sàngam jinne yi nag ay xeetu xayawaan loo xam ne yàlla moo leen wàccee ci jamono bind leen comme mbindeef yi mais jinne moo ëpp doole rab mais jinne rawaxaane ko ëpp doole ak xuddaam xuddaam moom la ñuy wax bu fekkee ni ñi xam tur yàlla mooy mel ne comme genre koskoon rang lu gàtt lay nekk daanaka boo koy xoolee moom sans xeetu tunguli lay doon kooku la ñuy wax xuddaam ñaari sëriñ si bu ñuy yeble ci loolu la ñuy ëpp lu ñu yeblee bu ñu bëggee nit duma nit wala ñu bëgg fal nit wala ñu bëgg di yeble nit nit ku feebar xuddaam lañuy faral di yebal. jinne nag dafa bëri ay façon am na jinne siyaatin am na jinne euh, jullit waaw mais jinne siyaatin ñaare saa boo sàkkoo jee ba am ko boo ko njëkk njëkkee doo ko mujjee lu mu la mën a may it mën na la ko xañ jinne siyaatin jiney jullit ji nag saa bu ñëwee ba agsi ci yow lépp lu la may ba àdduna tukki mën na la koo bañ a xañ waaye am leen ñoom ñoo yombul parce que ñaari ñi leen di am dëgg mooy ñi nga xam ne sax nañ ci lu neex yàlla sax ci ismulaay ansam waaye jinne ak rab bokkuñu waaw. damay dugg ci actualité maanaam ni mu ko waxee du ma ko du ma ne actualité damay dugg ci sport football. Mm-hmm. ñu ngi ci kàmm bi coupe d'Afrique suñu premier match yàlla mayoon na ci ndam deuxième ñu duma ñu mm-hmm. troisième aussi yàlla may nañu ndam ñu war a fubalaat ni ki tey ci kanam tuuti ay simile yu néew mm-hmm. noo gisee tey seen équipe bi ndax mm-hmm. dina ci génn wala du ci génn ndax ñun dinañ doon koy sori wala dinañ indi coupe bi waaw xam nga loolu moom euh, yi fi biir la parce que damay wax ne saa su ne lii di làmb ak football yëpp ñoo ci yem tey ji ma ne Sénégal day gagné Sénégal gagné amul solo xam nga li ëpp solo mooy xam naa ne senegal day gañe la tax ñuy gañe sarax la baa di ñaan naa ko def xam naa ne dañ koy dóor naa fexe ba muccal leen ba ñu bañ leen a dóor wala bu ci benn pexe amee boo xam ne lu bokkut ak loolu na ma fexe koo def diw mbër sàngam day daan mbër sàngam te it amul njariñ parce que boo ko defee li ci ëpp ay noon sax la lay jural parce que tey jii par exemple ci combat Modou Lo ak Ama Sène bii nga xam ne moom lañu jubloo tey jii boo nee Eumeu Sène day daan Modou Lô wala Modou Lô day daan Eumeu foo ci wax bàyyi fa ci des am ngay soppi fee am nga ay noon fee kon li baax mooy bu fekkee ne nit seet si na la defal ko la nga ko war a defal waaye keneen ka bul empêcher ay supporteurs am bul empêcher wala ngay tiital di leen xorñoñal ci loo xam ne lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag rafetal ko moo gën di ko ñaawal parce que man dama ne nit buy wut buzz wala mu bëgg a siiw man de man bës boo xam ne dafa jóge ci lu rafet ak honnêteté moo ma gënal fopp loo xam ne ëllëg dañ lay xool di la xeeb parce que nit ki day am njaboot nit ki day am famille bul sedd sa bopp yow muy yow mi toog di wax am ngay xarit ami soppee dee leen sedd saa su ci la ngay wax bu dara dalee ci sa kaw ala kulli alin day dal ci seen kaw kon booy wax del xool li ngay wax bu baax a baax te wàllu ay football ak làmb dafa bëri ay sacrifice bëri ay fitis ñaare sëriñ dina toog sax wax dëgg gis dara ñu wan ko ko muy dëgg bu wér keng mu dem ba ci biir affaire yi ñu wëlbati ko fekk na yow ndeysaan loolu la la yàlla woon juumuloo mais waroo woon a wax parce que li tax waroo wax mooy loo xam ne day dem te fii ba fin bi mën naa soppiku boo ci waxee loolu ci dal yaa tooñ sa bopp. man billaahi wallaahi watallaahi ak waxtu yu yàlla bu ma raw match Sénégal bi passé barki alxuraanul karim trois 0 yi dama dan ma ko woon ba mu jeex tàkk wax ma sarax bi wax ma li ñu war a génne. bi ma génnee ñi ma am accès ci ñoom pour war lañ koo génne loolu dama leen wax ñu génne ko te sarax bi cere ak soow la woon <clears throat> ma ñaan yàlla ba ni match bi jeexee trois heures yooyu échappé wul dañ may wan ci loolu ak leneen leneen ak leneen yu bari mais du lu may génn di ko siiwal parce que amuluma njariñ tey Sénégal sama réew la tey bëgguma lu dul ñu am ndam ci li ñuy sàkku bëgguma du dul ñu indi jël coupe bi indi ko fii ci Sénégal parce que képp kuy sénégalais di citoyen loolu sa la sa ndam la. kon man lépp luy may équipe bi ndam su ma ko xamee ci ñaan dama koy def te tey jii boo leen demee dinaa jël sama kurus toog ñaanal leen ngir yàlla te yàlla tax bu ci sarax waree su ma ko mënee dinaa ko def su ma ko mënul dinaa ko tasaare ñi ci war a def def ko ci loolu point mu jeex waaye awma dara lu ma ci naan kiyee gañe ak kiyee gañe nan ñaan yàlla rek yàlla delleesu leen ci jàmm may leen la ñuy sàkku te mu ànd ak mu sedd guy ci barkentu yàlla Muhammad barke sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima dañuy daal di kubbi ci jàmm mm-hmm. waaw ci làmb ji laay dugg mm-hmm. booy ñaan ak dëgër loo amuma ah, dara lu ma ciy wax ci côté boobu parce que man nit laa boo xam ne lu ma ne duma ñaan ci làmb dama koy ñaan damay ñaan ci làmb damay ñaan ci football parce que ay mbër yu mag dañ may déglu te samay nit lañu dañuy ñëw ci fii ci sama kër ñu ci bëri xam nañ ma dama leen di ngemb waaye amul kenn ku may taxaw di ci tudd sa tur parce que man damaa discret man nit ku discret laa dama bëgg lu discret te bëgguma di avancer ci loo xam maa ngi la koy wax ci sama biir wax ëllëg dañ ci xeeb nit di ma ci xeeb wala dara. Euh, gis naa ne daal nañ ci génne sarax sarax bi ñu ciy génne nag weesuwul nañ ciy génne lu toll ci maanaam kilo ndawal yi quatre-vingt-dix-neuf kilos ndawal gii nii ñu génne ko ci parce que buñ ko deful combat dina dina dina am ñu ci faatu te deret dina ci bëri loolu daal maa ngi wax ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp ku ko man ci ñaari côté yi muy Boña wala la de Guiers wala ki tëgg combat bi. su ko mënee def moo gën lu ko may lu loolu rek deret dina cee bari te faatu yi mën na cee am waaw su ko mënee it moom mi nga xam ne moo tëggu combat bi xaw ma kan la xaw ma turam moom mi tëgg combat bi su ko mënee na ñetti xar yoo xam ne yu ci nekk benn melo lay doon benn melo benn bi mu rey ko biir ndakaaru beneen bi mu rey ko ci stade bi yi nga xam ne moom la ñuy fubalee beneen bi mu génne ko dëkk bi def ko sarax ñaan fi jàmm làmb ji egg ci jàmm lu ko may lu loolu rek leen ci gis lu ñu naqari te loolu yàlla nañu ci yàlla musal loolu daal laa lañ mën a baaxee ci combat boobu mm-hmm. waaw jërëjëf mm-hmm. foofu leer na naan dañuy dugg ci wàllum uh, noob mm-hmm. su ma nee nag am na ñoo xam ne bëgg nañ ko ci wàllum seen côté sëy koy def nag xaw ma ñeen ñi a xaw ma man noob sax dafa am sëriñ soo xam ne ñaari dañ ñëw ci man ña <clears throat> ma sëñ Fallu ndax noob am na may leen ah am na waaye nit moo nekk loo xam ne doonul benn objet boo xam ne yàlla da koo teg rek ba ku ñëw rek maanaam fële fële ko dem déedéet. wala xadd karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri wal baxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddal naa ala kasiran min xalaq naa tafdilan doomu aadama yàlla koo fonk fonk ma ko fonk tax na nag ba du caagi ne képp ku jóg jëm ci moom rek dem ci moom dal ci moom déedéet dafa am man mi yàlla xam na ne bëri na ay cas yoo xam ne su amee une semaine laay appel doomu aadama bi une semaine su fekkee ne jëkkëram dafa dem wala jëkkëram tëë ñëw suñu juboo ci ay kawi kàddu une semaine laa koy wax bala muy mat mu gis borom këram su fekkee ne koo xam ne dañuy reyante suba ngoon guddeeg bëccëg mënuñoo juboo su la neexee mën nga maa bañ a fay téye sa xaalis wala ñu jël xaalis bi comme que Sénégal léegi dafa yàqu ba daanaka nit ñi bu ñëwee ci yow ak njaaxle su seen aajo faju dootu leen gisati. ba nu waxtaanee bu jëwoon dinaa la wax ne la nangam di jël ko nga teg ko ci bërëb sàngam koo wóolu nga jox ko ko soo gisee nangam nga indil ma sama xaalis mais noob am na noob nag ak tasxiir bokkuñu tasxiir mooy lii ñuy tuddee mooy nga tàggat doomu aadama bi koo bëgg laaj alal nga tàggat ko ba mu indil la alalam ci loo xam ne du tayif wala boog nga bëgg a not doomu aadama bi mu nekk comme taalibe wala mbaam ci yow ba du ba du la gëme loolu it xeetu tàggat la ñu koy wax taskiir noob nag mooy ba muy nga bëgg nit ki sopp la nga def lu tax seen diggante ratax te loolu dafa doon loo xam ne dafa sonal doomu aadama yi noof moom sañ naa cee lekk xaalis bu ne te yàlla ngi may suturaal lépp lu ma ci mas a dugal sama loxo rek yàlla defal na ma ci sutura waaw waaye nag dafa nekk loo xam ne euh, du sëriñ sépp ko man sëriñ si ndeysaan ay jàmbaar lañu dañoo am xam-xam lenn rek mooy xaw doon suñu cat mooy da gis koo xam ne ci bopp bu métti rek la ma ne mu jéggi bopp bu métti dem ci ay tànk yu métti ñaare boo ko defee te la maîtriser woo ay tànk yu métti faw nga am ci jafe-jafe man euh, nit day ñëw ci man bis bu nekk mu wax ma tawat mu leer ma ne lii du sama spécialiste mënuma ko wallahi la asim ma ne ko demal ci bërëb sàngam kooku de jàpp naa ne sama xel dal na ci moom te man na ko wala lii kat xaw ma ko ko man man de duma lekk sa xaalis parce que àq dafa fort. te doomu aadama nga yëkkati dara jox ko alxuraanul karim amul sa fay nit feebar nga faju ko amul sa fay waaye nag nit jox la xaalis tamit nga lekk ko te defaloo ko dara àq jooju man sëñ Fallu àttanuma ko te duma ko lekk waaw ndax euh, àdduna dafa gudd tànk te bàmmeel dafa dafa dafa dafa dafa dafa xóot te dafa yàgg waaw jërëjëf kon waaw maa ngi tàggatoo réew mi yëpp di ñaan ci réew mi jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm te suñu gaynde yi nga xam ne ñoo nekk ci coupe d'Afrique bi yàlla defal leen fa jàmm may leen mucc ba ñu yéen si jil dellusiwaat ci jàmm te bu ñu ñëw yàlla ñu indaaleel coupe bi ci daraja yi Muhammadu Rasulullah ci barke Maam Cheikh di ñaanal senegal gi yëpp yàlla defi fi tawféex tey taysiir yàlla comme que ñi nga waaj dugg nawet yàlla ma ñu nawet bu baawaan te nawet bu barkeel lool bu dàq ci nawet yu ñu nawet te yàlla may nit ñi wér ak gudd fan may wax ne nag at mi it wax naa ko waxati naa ko te nañ ma bàyyi xel dégg dina bari ndaw ñu bëri danañ dem ñàkk ci seeni bakkan kon ndaw nag bu amul gàllaaj na gàttub tànk gàttub làmmiñ te xam fi muy dugg xam li muy def accident yi dana bëri deret ju bari dina tuuru képp ku bëgg a mucc ci yooyu timit waxoon naa ko ci benn télé nee naa leen nañu wut paftan ay doomi paftan bu nu amee ñetti doom yi baax na juróom-ñaari doom yi baax na kenn ku ne nga jël ko nga def ko ci ndox baaxal ko ba mu baax nga bàyyi ba mu sedd nga jël sangoo jël doomi paftan yi tuur ci suuf toj boo ko defee lépp luy xeetu musiba ci at mi yàlla mën na la cee muccal wasalaamaaleykum wa aqli dawaan an alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen itam di leen euh, siyaare ci teewaay bi ngeen fi teew di siyaare sama sëriñ sëriñ Modou Xaban Mbacke Fallilu di ko ñaanal yàlla na fi yàgg loolu te wér wasalaamaaleykum